monsieur le ministre fi may njëkkee mooy leeral leen ndax ñii dafa mel ni dañu fàtte démb tey bu ñu toogee tey ñuy xarab régime bi fi jaaroon dama jàpp ne am na ñoo xam ne fa ñu toog seen yaram war na daw ndax président Niass mi premier ministre bo régime ba la woon président Macky Sall premier ministre bu régime booba la bokkoon kon tey su ñu taxawee ñun di ñu ko seedeel ñun ñi nga xam ne jamono jooju nekkuñu woon sax ak ab yi municipal kon dama jàpp ne ñooñu tey ñoom war nañoo am lu ñu yëpp tey ci seen yaram ndax kenn ëpp leen ci responsabilité beneen bi ci des dañu la wax léegi Covid bi Covid bi président bi mu wootee nuñ opposition bi dañ ko wucci yéen ñu ci wuy ji ko dañoo àndandoo ñëw assemblée nationale voté ko loi d'habilitation 1000 milliards. ngeen jël 1000 milliards yi dugal ko fu leen neex ba léegi si dara leerul kon loolu soxlawul ngeen ci wax ndax ba ngeen jóge dañu jóg jàppale leen tey nag réew mi tey àgg na foo xam ne jafe-jafe yi metti na ndax réew mi dara nekkatu fi jaay ngeen licence de pêche yi ba ndaw yi amatuñu fu ñu nappee ñu jël seen bateau yi transformé ko ay tax di yóbbu nit ñi bitim réew barça wala barsaq lan moo ko waral ñàkk emploi tey jii nii réew mi dem na ba ñàkk àgg ci foo xamante ne ci wàllu ñàkk ndox kenn mën la ko wax bërki démb rek marché bi muy lakk ci tuuba une la tàmbali ba huit ci suba mënuñu koo fay ndax ñàkkum ndox boo xoolee mbay mi tey jii nii baykat yi bay nañ ba pare yor seen gerte yi tey amaguñu xaalis ñuy wër ci marché yi luuma yi di mbappat seen gerte yi ndax lan ay jafe-jafe boo jëlee li nga xamante ni nii mooy wàllu wër-gu-yaram tey jii nit ñi tey ku feebar boo demee ci hôpital yi doo doo faju ndax lan manque ay jumtuwaay ak i garab tey jii boo jëlaatee wàllu mbay mi yéen a taxawoon fii ne yéen a taxawoon fii ne da ngeen am autosuffisance de riz bala ñoo àgg mille 2020 bi ngeen ñëwee fii wax ngeen ne li ñoree ci Sénégal mi ngi toll ci 1 million 11 mille tonnes mais jëggaani ngeen lu toll ci 1 million de tonnes ana ana autosuffisance ren nag moom xam naa ni ak Covid bi moom jëggaani ngeen lu lu romb plus de 2 millions de tonnes ndax li wàcc ci port bi ngeen jënd ko si ceeb séddale ko jàpp naa ne war naa ëpp 2 millions de tonnes li ngeen jënd ndax li ngeen jënd ren moom dañ da koy wala mu tripler ko. boo jëlee li nga xamante ne yii yëpp am muy ay jafe-jafe ngeen jël alalu réew mi di ko pasar pasare taxawal TER boo xamante ne ay ati at mu nekk en TER di nelaw 731 milliards wala 730 milliards yoo xam ne amul njëriñ ma nga tëdd di nelaw 730 nangam milliards yooyu su ñu ko defoon tey ci emploi tey tey kon xale yi tey du ñu dem tey ci géej gi waaye lépp gis-gis bu gàtt rek moo ko waral. ñu jël tey jii nii 57 milliards def ko ci deer boo xamante ne ay militant lañ ko jox moo tax duñ fay ndax militant boo ko joxee dara mu dugal la ab kaar mitingal la day jàpp ne li nga ko financé euh, da nga ko koo may moo tax duñ fay man tiit naa ci sax ndax seen fonds boobu vingt milliards vingt millions d'euros yooyu war a jógee royaume d'Abu Dhabi ngeen wax ne bu ñëwee fa ngeen koy dugal jàpp naa bu ngeen ko fa dugalee dañ koy politiquer waat rek du jëm fenn ma gis ne jafe am na réew mi sonn nañu askan wi sonn nañu seen yaakaar tas na ci régime président Macky ndax tey jii boo foo jaar ci mbedd yi looy gis ay nit ñu sonn bu ñu waxee ngeen bëgg a laytoo tey Covid bi Covid bi dafa fekkoon avant muy ñëw ngeen yàq alalu réew ndax da ngeen ko jël dugal ko ci ay chantier yoo xam ne dara mënta àgg ay milliards yi milliards ngeen jël ko loo xamante ne ay marché gré à loo xamante ne nii jara dara jaarul yoon ba tax na li ñuy leen di ñaan mooy li nga xamante ne mooy seen institution yi ngeen taxawal nga xam ne amul njariñ di jël alalu askan bi di ko naan muy au conseil bi conseil économique social environnemental yu mel noonu dafa jaadu ñu tas ko ndax mënuñu jóge ci Covid nekk ci ay jafe-jafe mais yéen tësatu leen ko ngeen jël seen i yéen jëlaat xaalis dolli ca jox leen pour ñooy man di gundaandaat ak di bànneex noonu la ñuy yoree am réew ma jàpp ne institution dañu leen a waroon a tas wala bu ngeen leen mënta tas ngeen wànn seen budget yi waaye defatu leen ko benn bu ci nekk yéen a nga leen di dooleel xaalis loolu ma jàpp ne du doxal am réew waaye nag lépp Sénégal yi ñoo ko def ndax président Macky sàll maanaam ku togg togg bu njëkk ba neexul waruñu laa joxaat ngay toog comme nag joxaat nañu ko mu togg tey moo ñu indil jafe-jafe yi wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatu